Mohamed mu mel ne ku waaru la war a taxawee loolee la journal bi di laaj ndax fukki fan juróom-benn ci weeru me gi ñu nekk moom njiital parti Pastef li war naa dem wuy yoon moom ak Adji ñu war a taxaw ca kanamu chambre criminelle ngir régler coowal viol di siifli ko Adji di tuumal ay nit yuy liggéey ci wàllu justice bi xamal waa l'Observateur ne bu ñu nee suba la procès bi maanaam fukki fan juróom ci weeru me moom Ousmane Sonko war naa dem ngir wane ne ci dëkk bi te ci ëllëg sa ko bu ko deful danañu ko dem jëli fanaanal ko tribunal bu ñu xëy àtte ko journal bi dolli ñu ci ne moom Ousmane Sonko def ñaari waxtu wax na ci résultat yi analyse yi mun jot na ko te la ñuy wane mooy force de défense et sécurité yi dañu ko bëggoon a liquider moo tax ñu sotti woon ko liquide wax na ci mbiri justice wax ci mbiri Sweet Beauté wax ci mbiri Frédéric Napel di alkaati bi ko porte plainte wax na ci dialogue bi président Macky Sall woote Ousmane Sonko ne na dialogue boobee bu ko ca kenn xaar ndax demu ca li tax mu ne mooy gisul njariñu toog di dialogue te dialogue ba sincérité amu ci l'observateur nañu woon a aw ñooñu mit ci désobéissance civile Les Échos bind ne Ousmane Sonko rakkaaju la def démb nee dina tàmbali fan yi di ñëw ab campagne de désobéissance civile jëmee ci justice bi maanaam xirtal nit ñi ngir lu leen justice bi sant lànk nee moo lànk kandaare demul dialogue jiwul ak Macky ndax Macky Sall mi woote dialogue bi jubluwu ci dara lu dul nu mu mën a daganalee troisième candidature bi moom Ousmane Sonko kii di Doudou Ka xëy na di ko wax boppam ak di ko yemale ci Direct News na ko luy tàkkate du fay Doudou Ka nee na képp kuy wuyoo républicain boo gisee ñuy attaqué république bi di ko saaga ak di ko ñàkkal fayda amatoo droit toog di seetaan mu ne Ousmane Sonko ak li mu dëkkee mu di di décrédibiliser institution yi ci réew mi dem na ba jéggi dayo nag ndax bu yëkkatee ay kàdduy tuuma yu garaaw gàll ko ci ndoddal force de défense ak sécurité yi ne ñoo ko doon jéem a assassiné wax joojee ay wax du ko gën a rëy Doudou Ka ne Ousmane Sonko ak li muy Thomas Sankara Sankara lu rek loolee tax nit ñi xool ndax jar naa joxum réew am déet ko jox di maire bu Ziguinchor Doudou Ka ne ci direct news Ousmane Sonko dara la fa deful fukki ak juróom yi mu def ca boppu mairie bu Ziguinchor amu fa benn bilan bu dul di dig nit ñi lu mu leen dul def bilan bu catastrophe ak ay kees yu vide ba ne pëng wëng la témoigné nee nañu moom la Ousmane Sonko ak Aminata Touré def Macky ci dialogue bu mu woote Sonko nee na demul Mimi nee na demul l'info nañu Mimi Touré yamu rekk ci bañ ñi di ca dialogue ba da dolli ne dialogue boobee ab dil bu dox ci diggante waa Parti démocratique Sénégal ak kii di Macky bokkuñu gis-gis ci dialogue ndax bokkul ki bi la ñuy am ndax ci projet de texte ca lañ koy jaarale li ko ëppal solo nee mooy mën caa bokk bés bi le jour bind ne Macky Sall xaar na yeewi ñaar ndax ñi ci biir yeewi askan ku ci nekk ci ñoom ak sa position ci dialogue bi Khalifa Sall nee na dialogue am fa la force demul ci mu ngi sàkku ci seen leader El Hadji mu bañ a wuy ci dialogue bi suur soo nañu ak féewaloo am na ci biir opposition bi waroo ci seen biir mi ngi tukkee ci waxtaan yu président Macky Sall woote Khalifa Sall waa parti démocratique Sénégal waa F24 waa grand parti Ousmane Sonko ak Aminata Touré ku ci nekk ci ñoom lay sa taxawaay ci dialogue bi mi ngi ci xët mu njëkko source wa guy ga daanu na bibliothèque ba lakk na journaliste bu mag ba dem na journal l'observateur las enquête tribune source wa li quotidien vox populi walf quotidien le quotidien témoigné soleil national ak sud quotidien ñoom ñëpp xëy nañu dañu tàggee ci seen xëtu njëkk maam les camara mi génn àdduna keroog samedi l'observateur ak vox populi dolli ñu ci ne école bii di sesti moom maam les moom la ko tuddee léegi